sant di gërëm euh, suñu xarit suñu àndandoor euh, ministre d'État Cheikh Kanté mi nga xam ne moo waral bés bi di ko gërëm di ko sant di féliciter di remercier di encourager président Macky jàmm moom moo gën lépp lu dul jàmm nit koo xam ne kii yàlla defat jël réew mi teg ko ci sa loxo nga nekk ci yoonu njub ak jubale boole ko liggéey guddi ak bëccëg teg ko nag ci saxal sa làmmiñ ci oote jàmm président Macky ku ne mu ngi lay tàllal loxo pour nga jàppale ko lii ko yàlla dénk muy yore Sénégal Cheikh nga bokk ci ñi nga xam ne Euh, li nga mën yëpp yaa ngi koy def pour président Macky Sall am ndam lii nga def kenn ku nekk ci ñun la war ci Sénégal waxtaan ak mbokk yi ndax ñun ñëpp ay mbokk lañ muy ay jàngalekat muy ñu nekk ci diine bi di ci liggéey mooy ñoo xamante ne yii ay sénégalais. yu jël seen bopp yëpp jox ko yàlla wante di liggéey guddi ak bëccëg pour lu jëmale réew mi ci kanam a boo ootee tey pour ñii nga xam ne démb ak barki démb xëy na euh, réeroo amul ñàkk waxtaan xëy na moo am ba ci amoon wuute jis gis ak président Macky Sall ci doxalinu réew mi tey ji ñu dem ba xam ne ay la yéwén président Macky fooyewul liñ ko jox mais def ko jël pour liggéey Sénégal ñu jox ci ay firnde muy kër diine yi Touba la ville sainte Tivaouane la ville sainte Kaolack Ndakaaru foo ci xool rek lépp lu mu mën rek dugal na ci loxoom pour diine islaam bi nga xam ne boo jëlee Sénégal ak sax diine ñeneen katolik yi foo ci dem rek loxoom a nga ca parce que liggéeyal sénégalais yi mooy jàppale leen ci seen i ngëm jàppale na leen ci seen ngëm mu seetit xam ne liggéeykat yi képp koo xamante ne kii yaa ngi yore réew mi war nga leen déglu mu déglu jàngalekat yi li mu métti métti li réew mi métti métti li jamono métti métti mu déglu leen joxe ay instruction pour que seen revendication ñu def ci lépp li ñu mën pour jàmm dellu si ci Sénégal ci anamu jàngale mi yàlla suñ borom tabaraka wa taala muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam njàng la jëkk doxe ñu wàcce ko ci moom iqra donc jàngalekat yi réew mi pour mu jëm kanam président Macky Sall ne fokk mu jéem li mu mën ak li réew mi antan pour que ñoom ñu nekk ci jàmm jàng mi nekk ci jàmm parce que balaa ngay ne naam ne fa fokk suñu doom yi jàng am xam-xam looloo tax tey jii yéen ñi ñëw uyu wante itam ak ñeneen ñi nga xam ne dañu ànd ak yeneen sénégalais am ay gis-gis yaakaar ne xëj na ku leen jox ñu def lu toll wala boog sax lu xaw a méngoo ak li président Macky Sall di def wante boo demee nag bi xool xool xool bene ne ay la yéwén li président Macky Sall di def ku ànd ak moom jàppale ko réew mi dana gën a yëkkati ku jëm kanam ah war ngaa xoolaat sa bopp nga dem ah, wax dëgg yàlla jàppale président Macky Sall donc gàcce ngaalaama ñi nekkoon ci yeneen parti yi ñu tudde opposition yëpp euh, muy bépp bépp parti ak bu mu mën a doon rek président Macky Sall moom mu ngi tàllal Sénégalais yëpp loxo yal na fi yàlla def jàmm te Cheikh Kanté yal na la yàlla may ndam ñii ñëw aussi la ànd ak yow pour jàppale président Macky Sall nañu xam ne président Macky Sall day gor la nit la koo xamante ne kii kenn matul de mais lépp li mu mën pour Sénégal ak Afrique ak àdduna jàmm am fi ndax fu jàmm amul dara du fa du fa taxaw donc nitu jàmm day ooteem boole ca liggéey ku jara jàppale la donc ngeen boole li ngeen def yépp nag jàpp a ah, ngeen boole ci ñaan ndax fii ngeen weeru day ne di wax eh, Mbakke Mbakke wala tuubaa sax ndax lépp Touba la sëñ Touba nga Rasuul lépp moom la gannaaw yàlla ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci yoonu liggéeyal suñ borom tabaaraka wa taala donc loolu itam lu ci jara boole la nañu ñaan daal jàmm am ci réew mi président Macky Sall nitu jàmm la yal nañu yàlla jàppale ñun ñëpp ñu joxante ay loxo nekk benn ndax suñu réew mi continuer nekk ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah monsieur le ministre d'État docteur Cheikh Kanté monsieur le ministre Mbaye Thiam maa ngi leen di nuyu di am mbégte ci jataay bi lool ku gis sama toogaay fii nag tey war a poser question xam ne lu rëy moo ko waral loo xam ni yàgg nañu am yéene ji yàgg nañu am bëgg-bëgg bi waaye jataay bi tey la ko yàlla dogal man nag maa ngi tudd sëñ bu Bousso coordonnateur départemental bu Mbacké di Grand Parti ku ma xam te gis ma ci video yi walla nga dégg sama kàddu ak fa la fa ma a nekk danga xam ni euh, colonne vertébralu Grand Parti ci département de Mbacké yàlla def na ni man mii la man man la woon kon tey su ma demee taxaw ba ñëw ci jotaay bu mel nii di fi jël kàddu di wax ay engagement yoo xamante nii dinaa ko jël fii devant tout le monde ngir jàppale ki nga xamante ne nii moo tax ma ñëw fi muy président de la république Macky sàll ànd ko ak docteur Cheikh Kanté ngir réalisation yi nga xam ne def na ko ci réew mi def ko ci bitim def ko ci biir réew mi ak biir Touba loolu lépp du loo xamante ne nii gannaaw bu ñu fattoo woon dem nañ ba xepp ba gis ni kat kii ku jar a taaw ku jar a taxaw la ku jar a jàppale la ku jar àndal la nee na ko nekkoon nañ ci opposition bi certain moment bu nga xamante nii ku ñu xool te gis ñu dañu xam bari na lu ñu daan demande di sollicité di wax nii kat dañoo bëgg ñu ànd ak ñoom liggéey ndax suñ suñ taxawaay ca département ba ak ci bi fi nga xam mooy Dakar waaye tey maa dem ba xalaat ba xam ni amatuma benn objectif bu boo xamante ni danaa ko yëkkati di ko teg ngir lu luy contrecarrer liggéeyu Macky Sall wala di def Macky Sall nag su dul noonu ci biir réew mi gis taxawaayam mu taxaw ndaw ñi taxaw jigéen ñi taxaw mag ñi taxaw sëriñ si taxaw kilifa kilifa diine yi te nag aspect boobu dafa am solo ku ne gis na Touba réalisation yi nga xam ne ma ko fay def ak xol yi ni ñu yi tey ñun Guédé boo fa demee da ngay dawal sa oto ba àgg sa sa buntu kër te am problème suuf oto bu cam wala leneen ak leneen ndox yi daan taa wàññi ko na baax macha allah léegi nag lii tey maa sama coobarey bopp def sama déclaration ànd ko ak ay responsable yi nga maa nekkoon ak ñoom ci département de Mbacké di liggéey ndax ku ci nekk ba ma jël décision bi woo naa la nga ñëw ma consulté la waxtaan ak yow ni la kat gisatuma lu ma xam réew mi fi mu fi ko Macky Sall moo gën fi ñu ci woo pour ñu yóbbu ko fa moo tax tey jii may def may may def déclaration sama démission ci lépp loo xamante ne nii grand parti joxoon na ma ko fa ci ay responsabilité ci parti bi ma yor ko bàyyi naa tey grand parti bis ni ko tey ànd ak Cheikh Kanté ci mu des républicains pour taxaw derrière Macky Sall euh, Cheikh Kanté pour jàppale Macky Sall ci liggéeyum réew mi jëm kanam maa ngi ciy woon ak képp koo xam ne gis nga ma wala nga dégg ma te xam ne maa ngi woon ci opposition bi tey bis ni ko tey na la leer ni la maa ngi ci Macky Sall maa ngi ciy xaar tamit ñëpp ñi nga xam ne daanañ ma dégg mbaa ñu may gis mbaa ñi nga xam ne maa ngi ñoom ci liggéey bi ci département ba nekk ci Mbacké ak ci Dakar tamit maa ngi sant bu baax baax ñi nga xam ne ñoom la àndal ba département de Mbacké muy Abdou Ndiaye ak ñeneen ak soxna Kumba Mbeng ak ak Demba Ka chef ay chef de village lañ ay chef de quartier lañ responsable yu mag yoo xamante ni nii bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñ ànd koog ñun kon nag mbokki jullit yi mbokki réew mi mbokki Touba nañ xam ne tey bis ni ko tey maa ngi nekk ci gannaaw Cheikh Kanté di ko jàppale ci lu jëmale réew ci kanam ànd ko ak Macky Sall président la République yàlla may ko ndam ci action yu ñu jëm. Euh, ba ñu sante yàlla suñu buur julli ci Yonent bi sallallahu ñu ngi sant le président Cheikh Kanté bi nga xam ne tey moom moo ñu invité à Fatick pour ñu waxtaan euh, wàllu réew mi wàllu réew mi nag ñun ay liggéeykat lañu nous sommes des travailleurs. ñu ngi constitué wu ci ay syndicat de branche ak aussi yor ay centrale syndicale ñun nag suñu syndicat bi nga xam ni man maa ko jiite muy SIDEL syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal ak CNTLS confédération national des travailleurs libre du Sénégal nga xam ni ki ma àndal tey mooy Babacar Tall mooy trésorier Adja Bakhoy Diongo aussi suñu camarade secrétaire général CNTS FC authentique nga xam ne mu ngi nii taxaw ñun ñëpp ñoo jugandoo woon keroog bi crise bi demee ba nga xam ni Sénégal bëggoon na bëgg am na ñoo xam bëggoon nañu rey école bi ñun ñoo jug taxaw daan école bi du dee. pourquoi école bi du dee parce que école bi ñun moom la ñu am école bi mooy suñu outil de travail ñun ay liggéeykat lañu il est vrai que dañu war a revendiquer mais boo revendiquer ba état bi jox la loo xam ni mosoo ko yaakaar ci sa ci sa ci sa ci sa revendication sa àdduna da nga war a arrêter daal di reprendre le job le travail. ñun loolu la ñu def à son moment ñu daal di suspendre le mot d'ordre de il faut que ñu nga xam ne moom la ñu état bi jox muy 98 milliards de francs CFA sans impôt sur tous les salaires des enseignants de l' élémentaire préscolaire en passant par le moyen secondaire. loolu nag mu ngi fii doog a am c'est historique moo tax ñun ñu koy dëggal di ko wax nëbbatuwuñu euh, kii négocier wuñu dara loolu li wax li nga xam ne moom la président Macky defal jàngalekat yi tey ñu ngi koy ci loolu. en dehors de ça aussi école bi su ngeen dee xool lycée yi ñu tabax bëri na. CM yi tabax bëri na école élémentaire yi ñu tabax bëri na il est vrai que fast track bi nga xam ne moom moom la ñu defoon pour résorber les abris provisoires ba léegi ñu ngi ñaan docteur Cheikh Kane wax ko président ñu gën ko accentuer parce que abris provisoire jeex définitivement xale nekk dans de bonnes conditions de vie et d' existence et de travail et de production. Mm. de même que les enseignants. aussi tamit ñu ngi ñaan monsieur le docteur Cheikh Kanté xam ni moom la président yabal si ñun ñu ànd moom di war a ko école bi li nga xam ne moom la jàngalekat di jooy pour le moment mooy. nañ leen mettre dans de bonnes conditions de vie et d' loolu mooy la c' est à dire ku nekk fa ngay jàng am fa sécurité parce que tey soo dee xool Casamance tàng na jàng yëpp daf nañu dugg ñu juga bi dugg biir bi biir a Bissau loolu aussi ñu ngi ñaan ñu sécuriser leen pour ñu mën a sécuriser doomu doomu jàmbur yi jàngal li ñu leen war a jàngalee leneen li aussi mooy li nga xam ni mooy euh, ay euh, ZAC concerté yi ñu jox dans les régions ñu ngi ñaan euh, waxal ñu président pour ministre urbanisme daal di koy viabiliser lu mu gën a gaaw lu mel mel de Kantane à Ziguinchor la ZAC de Thiès et cetera yooyu yëpp ba léegi sotteegul li leen ñaan aussi tamit mooy la formation diplômante des enseignants formation bi am na foo xam ne dafa xaw a surtout au niveau de la loolu je pense que euh, c'est une volonté politique rek pour ñu ko en tout cas daal grosso le président vraiment ñu ngi koy saluer ci mesures yi xam ne jël na ko pour les enseignants du Sénégal te loolu aussi dañuy ñaan ñu vulgariser ko partout dans le Sénégal te ñun on a les moyens vraiment de le faire parce que jàngalekat yi xamuñu lu bëri lu président di def mais comme ñun si nous sommes un syndicat vraiment d'action et si nous avons un programme vraiment à long terme nous voulons vraiment sillonner tout le Sénégal pour vulgariser très rapidement tout ce que le président a fait pour le monde enseignant et je vous remercie. jërëjëf voilà. sa tur ak sa sant euh, je me présente man El Hadji Mamadou Thiendella Ndiaye laa tudd maa ngi dëkk Mbacké doon membre Pastef euh, depuis presque huit ans. Euh, seen li yëfa jot a kii yu ci bëri man dugal naaj sama loxo li tax nag man pour man c'est retour au bercail parce que je suis un acteur euh, de l'avènement de 2012 mais entre temps foofu amul ay leadership kenn incarné wu ko fa vraiment ñi ñi tasaaroo les gens sont découragés kenn ku ne jàpp sa mbedd loolu moo fa am mais depuis que sëñ Mbacké mi dugg ci politique bi nekk euh, un candidat à la mairie Euh, ci la ma approché ñu waxtaan après ñuy liggéey ensemble tey mun ma damaa bëggoon nga dem ci président parce que yow yaa ngi Pastef te man maa ngi APR ma ne ko moo yow moom jaral nga ma sax man changer de samay conviction sama lépp nga jaral na nga ko parce que bien sûr avec Macky aussi on a beaucoup gagné Jean-Jacques Rousseau daana wax naan Euh, il n'y a, il, il y a pas de vrai progrès de nature. Parce que ce que l'on d'un côté, on le perd de l'autre. mais avec Macky on a plus gagné qu'on a perdu loolu moom wax dëgg yàlla lu wér péng la mais boo dee opposé rek da xool la la le ventre mou moom lañ daan dénoncer mais de maintenant man je m'engage à travailler avec euh, Sëñ Mbacké euh, ak docteur Cheikh Kanté pour le triomphe vraiment de Macky Sall loolu aussi bu ma ko waxee c'est pas par opportunisme parce que man maa ngi fa woon mais frustration moo ma jàppoon ak ñu bari ba Mbacke googu bari na fa trop ñoo xam ni ñoo ñëpp ils supporté Mbacke mais gisuñu on n'a pas de répondant franchement parlant moom lii mu ji dox a kas néew ña ca des ko ña des seen i bopp lañ fa nekkal loolu moo tax chaque élection ñu fa am problème te man bis ma jàkkaarloo président naa ko wax parce que je n'ai pas froid aux yeux nit ki boo ko jàppale da nga koy jàppale mais bu fekkente ni sa bopp da nga koy jàppale boo léegi dañ lay taxaw fële sëriñ nag ni muy doxee wax dëgg yàlla baax na mi ngi yaatal mi ngi parce que euh, parce que il est courtois il est il est il gentil loolu moo tax nit ñi ku mu approché daanaka nga am ko loolu moom lu am solo la ci facette politique kon nag maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. nuyu monsieur le ministre Cheikh Kandé ak monsieur le ministre d'État Mbaye Ndiaye kaddu yi nag du bëri lu sant bu baax di réitérer notre engagement derrière le président Macky moo waral boobu léegi. sonnuñu taayuñu lu dul nekk ci ginnaawam nekk ci ginnaaw docteur Cheikh Kanté pour président Macky Sall difficulté yi am dans le département de Mbacké et un peu au Sénégal luñ ci mën ñu mën ko def moo waral buñ jógee boobu léegi képp ku ñu gis jàpp nga ni war nga mën a apporter quelque chose à la coalition benn bokk yaakaar ñu nekk ca guddoy bëccëg suba ngoon et je prends l'engagement ici à Fatick que défaite yi nga xam ne président mi ngi xam am dans le département de Mbacké ñun danañ ci def suñu kéem tolluwaay kàttan en tout cas opposition bi du ñu hésiter benn yoon dem xëcc leen ñu ñëw ci biir coalition bi ngir ñu jàppale président Macky Sall la engagement bu ñu jël la fii et danañ ko matérialiser à travers des actes yoo xam danañ ko poser un peu partout dans le département de Mbacké incha allah désormais on sera plus présent. dans le département de Mbacké au niveau de Touba et au niveau de Mbacké en tout cas merci beaucoup ñu ngi lay santaat bu baax monsieur le ministre ci sa ouverture ci sa jàppale président Macky Sall parce que comme li sànq li El Hadj wax lu ñun lu ñu manqué mooy répondre na ci président Macky Sall heureusement que vous êtes là kon suñu xel dal na suñu yaakaar gën na dolliku am nañ espoir ni liggéey bi danañ ko entamer te dañ am victoire incha allah. aux élections yi nga xam ñoo nekk suñu kanam merci beaucoup. jërëjëf. mbokki Mbacke mbokki Touba man Mor Sarr maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di yëkkati it samay kàddu euh, li olof di wax kuy nëbbu du ne fàng ne maa ngi nii. bëgg a ca fas yéene jëf ko dafa am lu tax ñu jël décision bi yàlla dafa dogaloon ñun depuis ñu nekkoon bokk gis-gis ak sunu kilifa ga yàlla na ko yàlla xare àjjana Ibrahima Guèye moo ñu ci indi woon ñuy dem di dem di dem ba bi mu fi jógee ñu ne tekk ku ñu wax seex Abdou Mbacke Baara Doli waxtaan ak ñun ba ci local yii passé moom lañ àndaloon Touba liggéey ca liggéey bu rëy rëy rëy ñu am nag sun rakk sun xarit boo xam ne dafa ñëw yee ñu xamal ñu li président Macky Sall doon def am ci loo xam ne xamaloon nañ ko sun bokk suñ bopp ñun mais politique politique moo doxoon suñu diggante ak loola. parce que li ci ëpp solo sànci yeeg yëpp baax na Serigne Baax mi wax léegi wax na ko waaye lu toll ni Serigne Touba toog seedeel président Macky Sall ne président Macky Sall si cëral na ma ci boppam ba sédd ma sax loo xam ne ëpp na lu ma ko wax mu def ko léeg-léeg ma wax ko loo xam ne sax ëpp na. daal ne it élection présidentielle jàll Serigne Mountakha yëkkati kàddoom wax ne. président Macky Sall da ngaa ñëwoon bëggaat ma ñe ma boole ak Sëñ Tuubaa mu defoon ma li nga bëgg waaye man danaa la ñaanal nga am ndam man moor saar ma bokk ci ñi gëm ne ndam lii yàlla defal Sénégal ba Coupe d'Afrique dugg Sénégal sax kàddu Sëñ Muntaxa googa ak ñi mel ne moom ci biir réew mi bokk na ci li ko fi indi. kon nag su yàlla dogalee sëñ Mbacke Faye di sun rakk di sun jarbaat di sun xarit président Macky Sall jox ko ab cër ci cër boobu daf ko ko jox pour département Mbacke bépp du pour moom kese du pour njabootam. mu ànd ak kilifaam xaritam wëllëreem docteur Cheikh Kanté muy ku yaatu ubbil ñu dalal ñu xamul ñu dafa bëgg a ànd ak ñu liggéeyal président Macky Sall loolu man moor Sarr ak ñi ma àndal pare naa jël naa samay responsabilité ferme pour jàppale président ba la mu ñàkkoon département Mbacké ñu indilaat ko incha allah. docteur noo ngi lay sant di la gërëm di la xamal ne lii mënoon nañ ko ñàkk a def sax fii parce que Serigne Mbacké mii nga xam ne moom la président fal doo yoon ñu sëkk ñu yam ci moom parce que nag lëg olof dane lëg su ma cee na ko gërëm a cooy man moor saar su ma président amee ma toog ci wetu docteur Cheikh Kanté yi di wax je pense que Serigne Mbacke Faye moo waral loolu comme nag moo ubbi bunt bi di ma wan kan mooy président Macky kan mooy docteur Cheikh Kanté ba ma jot ci docteur docteur Cheikh Kanté yi loolu fasutun yéene mukk yàqu ko nekk ci ngelaw li di xeex dootuñu ko def dañuy combat kay pour que président Macky Sall gagné département Mbacké largement mais dootuñu xeex mukk pour Macky Sall lu ko fay indil benn gàllankoor parce que gàllankoor ko bëgg koo gàllankoor mooy mënuñu ko sax nag parce que ku yàlla yëkkati mënoo ko tëral waaye nag bëgg koo gàllankoor mooy bëgg gàllankoor Sénégal ñun kat ay xale lañ waaye maa ci cinquante deux ans gis nañ ne président yi ñu jote fréquenté waxuma deuxième mandat bi mais premier mandat def na fi ci ay réalisation yoo xam ne c'est sûr que ne président yi fi jaar seen mandat boo ko boole woon foofu kon nag kooku war nañ koo jàppale li ñu manqué woon mooy kuy jàpp ci loxo di ñu dimbale di dimbale nit ñi àndal di ñu dimbale di dimbale nit ñi àndal docteur am na nag loolu la waxoon ci biir néeg bi dañ koy waxaat ci conférence de presse bi dañoo ñëw sans condition du ab xaalis du dara li ñu indi mooy jàppale ñu ñu jàppale ñu àndal koñ jëñ dëkk am na ci koñ yoo xam ne manqué na ndox am na ci xam ne manqué na courant waxuñu quota ya nga xam ne sëriñ bi président da koy sédd Touba gépp bokk ko mais ñu àndal di politique lañu ñu manqué lañ wax ne ngeen jàppale ñu si ñun tamit ñu kon ne di leen jàppale ca incha allah ñun duñu war mukk merci jërë ngeen jëf jërëjëf mm. di sant euh, sama xarit yi ñëw tey volontairement sans condition euh, décidé ñëw jàppale président Macky Sall ay citoyens sénégalais la ñu di exercer seen droit droit bi mooy fu leen neex féete sans contrainte moo tax aussi sans contrainte ñu gis liggéey bu rafet bi nga xam ne bi président mi ngi koy def sans bruit ni tintamarre ñëw fekk si ko ne dañ koy jàppale man nag mënuma ci def lu dul sant yàlla parce que loolu ni ma ko mën a définir mooy sàmm sa alal parce que yàlla ci boppam su la dénkee alal sàmmoo ko ëllëg mën na mën na la ci poser ay questions su la dénkee njaboot sàmmoo ko na ko war a sàmmee ëllëg di nga ko lay ak moom. et j'estime président Macky Sall du alalu Sénégal rek alalu Afrique lépp la te kooku. su ma ko waxee dama ci euh, joxe firnde bu wóor barki démb man maa demoon OCDE OCDE mooy ci organisation yi gën a complet ci àddina parce que pays développé yi ñoo ko moom maa dem taxaw ak l' ensemble des ambassadeurs de l' e. des experts de l' OCDE interne externe di fa décliner la vision africaine de la gouvernance 2022 du président de la République pour soumettre leen ko bi ñu paree dañ ko accepter à l'unanimité bind ko lettre ne ko vision bi ngay def pour Afrique pour deux mille vingt deux accepté nañ la ko te dinañ la ci dimbali. parce que gëm nañ ni ni nga transformer Sénégal la métamorphose di Sénégal par transposition soo ko defee fii ci Afrique jàmm dina fi am koom-koom dina fi am ndool dina fi jóge waay waay waay waay ku am président bu mel noonu nekk président jàmm soo ko jàppalewul waroo ko xas di ko sànni xeer ah, loolu nag moo politique ànd mais li ngeen def nii da koy dama koy tuddee honnêteté intellectuelle ci jullit dëgg moo mën a def lii reconnaître mbaaxu nit parce que reconnaître mbaaxu nit du wàññi dara ci sa mbaax te fi ngeen ko jub eh, jubali foofu la baax baaxee parce que da ngeen di ñëw pour ñu ànd defar réew mi président loo ko bañ bañ bañ bañ bañ bañ war ngaa mën a jàpp ni mi ngi liggéey mais soo bañee gis li président liggéey doo génn soo génne di nga dox ci tali bu mu liggéey sooy voyagé di nga dugg ci avion bu bees bu mu bu mu jënd di nga dugg ci aéroport bu bees bu mu tabax ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak donc maa ngi leen di encouragé dinaa leen yóbbu ci président lii ngeen wax nii ngeen waxal ko seen bopp directement man it lépp lu mu mën a def. pour jàppale leen yenn enseignants yi parce que ay intellectuels ñoo fi nekk ay enseignants ay experts ay imam dafa dafa cosmopolite donc ce cosmopolitisme la dafay restituer la la diversité du Sénégal suñ diversité dafay nekk symbiose dans l' efficacité dans le pragmatisme engagement volontaire boobu man dinaa leen ci jàppale wax leen déjà que ngeen engagé wu ci parrainage yi parce que parrain li xaw ci élection yi jàll na ba pare choc ambition yooyu jàll na ay kilo mais fi ñuy jublu mooy parrainage bi nga bi nga bi nga xam ni dafa war a jox président une majorité dans l'absolu à l'Assemblée pour mu war a mën a continuer du gouverner dans les bonnes condition loolu laa bëgg dès à présent ngeen dugal ci seen loxo parenage nag amul hiérarchie fonctionnelle amul kii may patron dëkk bi amul ku ngeen gis nga xam ni porteur de voix la war naa mën a parrainer war naa mën a ñëw jàpp ci léegi bi woo leen ko mu ñëw ngeen pare parrainer ko loolu daal ci gàttal loolu laa amoon lu ma leen di wax di leen gërëm di leen sant maa ngi leen di jox rendez-vous Dakar pour que léegi vraiment chaque semaine toog ñu organisation def un bilan xool par rapport ak programme bi ñuy lal fan lañ fan lañ ko ndox donc maa ngi di gërëm di leen sant waaw wasalaam